ji ci politique bi diggante yeeweeg bennoo ak yeew yi damay mars ak doo ko fi marché léegi euh, oustaz Maodo coow léegi bëgg a bëri nag ci élection yoo xam ne dikkagul mais fu mu nekk nii euh, coow li mooy li nga xam ne euh, dañu dañu bañ yenn bulletin yi ah, nangul ko ñeneen ñi mu dara jur coow waaye yeew donte defoon nañ fi manifestation bu yàggul danoo bëgg defaat manifestation def naa vendredi n'est-ce pas. waaw te ñu leen ko ñu ne même bu ñu leen ko aay itam dañ ko fas yéene amal waaye nag xam nga lu jotul de waaye waxtaan moom jot na. Hmm. waaw waxtaan waxtaan toog. Hmm. waxtaan goo xam ne gii nag ñan jortoon ne xëy na duñ ko def ñoo ko war def maanaam kilifa gii nga xam ne moom la yàlla dénk réew mi wax jot na wala boog moom mu génn boog wax donte am nañu ko waxal itam ndax xam nga mbir day toll foo xam ne fii li wolof di wax naan ku ba aw xët dana nàcc te loolu bon bu ko rek ëpp def ca daal di am léegi nag kenn ku nekk fa nga mooy da nga faa mooy maanaam dil siwaat ci problème yi ñëpp xam nañ ko maanaam buñ jeexee dañuy def takkaraar ñëpp xam nañ li tax coow li am léegi kay mooy ndax dana am wala du am léegi su fekkente ne génn nañ euh, euh, te joxuñu leen te joxuñu leen li nga xam ne moom moo di autorisation police bi ci boppam ak gendarmerie amatuñu sañ-sañu pour encadrer leen kooku moom na leer su fekk loolu moom c'est maanaam waa yeewi Euh, li ñuy def xam nañ ko xam nañ ko bu baax a baax a baax ndax ay nit lañ yàgg nañ ci ëttu politique bi xam nañ manifestation lu mu mën a jur xam nañ conséquences yi mën a jur léegi nag li ci li ma ci metti te ma jàpp ne Sénégal yëpp war mooy am ñoo xam ni ñoom it seen yoon nekku ci ñu dégg ñu ne ñee dañuy génn ñu ne ñoom it dañuy génn mooy waa Benno Bokk Yaakaar nañ leen bu leen génn ñoom ñu ne dañuy génn te xam nañ te ñoom jàpp nañ ne loolu yoon waxu ko légui nak ñu nay nak légui ñomit ku genn ñu genn kon kay légui bu ñu bu ñu réprimer nañ réprimer ñëpp rek manam bu ñuy ngàdd nañ ngàdd ñëpp lool nak mo na ra andi problème té li jaadu war nak moy tok waxtaan ba li baña am ndax élection yi ñu jëm kët bu ñu deful ndànk am luy ram waye ci ñak bi la jëm té lool bu keroogee du arranger kenn té réew mi dafa laaj dal dafa laaj sécurité ma ngi dégg suñu frère bi nga xamé né mo jité africa jom sante mu koy wax né réew mi dafa am ay ay alal yu fi tambali genn té réew yooyu nak nga xam ne alal tàmbali dafa génn lu mel ne pétrole lu mel ne gaz ak yooyu activités yu demee nii am na ñoo xam ne dañu ci boroxluwaale te yooyu euh, nu ko tin waxee day xaw a day mën naa indi jafe-jafe daal laa bëgg a wax parce que yeneen yu bari am na solo oustaz Maodo Faye jërëjëf donte coowal politique yu ni mel euh, duñ ne guleet yàgg na fii. waaw ah. ah, merci fekk naa ci yu bëri dañuy paas jàll jàll ci leneen. Uh-huh. li yëpp solo mooy kii nee dafay def lii kër a neen dafay def leen li yëpp solo Macky mooy euh, ni ñuy def ba am consensus. Hmm. ci seen biir def naa lii gën a urgent jamono yi mooy ñu waxtaanee ko rek ba dégg ba jubóo. dëgg la ñu waxtaanee ko waaye léeg-léeg euh, day dem ba toll foo xam ne li olof naan ba day weesu mbuus euh, bu ñu gaawut léegi day toll foo xamante ne taxaw day jafe xam nga manifestation bi amoon àllarba ne tey nga xam ne dafa teew ci mbooloo bari na lool ba jéggi dayoo waaye seetlu nañ ne xëy na la ca def jàmm ba mu lañ ko autorisé mën naa am moo tax nga xamante ne ñëw nañ taxaw wax discours ya ba mu jeex ñu ñibbi jàmm ne ñooyu ku ne xam na ne loolu buñ ko autorisé wul woon euh, dara man naa xew ndax mbooloo mu toll bu buñ génnee génnaat danañ ci taal ay grenade lacrymogène yoo xam ne réew mee ko moom danañ fi baare circulation bi ba ñuy waroon a liggéey ndax keroog euh, ci àllarba jooju Nicolas bari na ñoo xamante ne sax xëyuñu liggéey am na ñoo xam ne avant midi gaaw nañ def li ñuy def gaaw génn biir Dakar dem ñibbi jàpp ne àdduna dina tukki te te te biñ ko te te yoonal gi ñu ko yoonal muy autorisation bi ñu ko def tax na dara xewut léegi nag mbooloo mu toll noonu bu ñu génnee gis nga manifestation day mujj yàgg day mel ni oto buy daw rek booy door a départ dugal première euh, mooy ba mbooloo mi bari noonu dugal deuxième day yomb ndax ñu bari ñu fekkewu doon booba dañuy jàpp ne biñ ñoom dañoo war a dem léegi ndax euh, maanaam yëf yi génn manifester moo koy faj ndax mbir mi day gën a yokku oto buy daw nag ba xiir dana toll foo xam ne jékki-jékki fi ne ko mu taxaw maanaam loolu mën naa indi danger bu mag a mag ca eh, ca ña nga xam ne ñoo nekk ci biir bi oto bi mooy réew bu boobaa njiitu réew mi ci boppam li Maodo wax xam képp koo xam ne bëggal na ko jàmm moom ci boppam wala mu bëgg jàmmi réew mi ci boppam war naa wax ak moom ndax ndax ndax responsabilité yi ëpp ci fi réew mi toll ci eh, ci am ndoddam la nekk nekkul ci ndoddum kenn waaye ci ndoddam la nekk nekkul ci ndoddum eh, ñële magistrat yi nga xam ne ñoo indi dogal bi nekkul ci wàllu ñi nga xamante ne ñoom la dénk élection yi waaye dafa am loo xam ne ne day yéeg bu mbir tollee foofu day yéeg ba àgg ca moom moo tax ñi koy ñi dend ak moom te di ko wax ne ko yaayoor réew mi yaayoor force bi yaa nangam ñii dañ ñuy fontoo mënuñoo taal dëkk bi gis naa ku mel ne ñoom Yankhoba Diattara génn samp seen i ndënd ñoom li ñuy def bu dee ci cadre politique mën nañ leen ko mën nañ leen koo nangul parce que politique waxante la tontonte la guerre euh, euh, moo la daal kenn ku nekk xool nooy songi sa moroom waaye ci wàllu sàmm kaaraange réew mi moom moom dafa war a yëg ne mooy borom caq bi te borom caq day moytu borom baatu neen te itam amut sañ-sañu sàggane loo xamante ne nii moom ci boppam daf koo war a sàmm ba sàggane loolu du am gis nga waa yeewi dafa mel ne yokkaar nañ leneen ci biir li ñu mettitlu mooy démb bi dëcc faal demee wuy ji e, fële ca barab ba yor élection yi dañoo wax ne seen tête de liste maanaam maanaam seen liste bi ñuy watee ji photo seen tête de du ci nekk leneen ak leneen daal di dolleeku waat kon ci yi nga xam ne moom lañ doon metti yooyu bu askan wi génnee li gën a li gën a yomb te gën a moyen danger mooy autoriser ko li gën a ëpp li gën a ëpp danger te gën a mën a taal réew mi mooy dañuy defante wala ëpp leen ñu mbooloo ñu nit dañuy génn ñun mbooloo yëpp ci ñun lañ bàyyi ko te buñ jàkkaarloo Sénégal doo nga ciy perte. Mm, n'est-ce pas Serigne la waaw. waaw xam nga xam nga comme ni mu ko waxee léegi luy tàmbali dañ koy xeeb. Mm. ñaare souvent am na loolu buy tàmbali dañ koy xeeb ndax ñi nekk ci sa wet

bu mu déglu ñi nga xam ne dañ koy wax lu ko neex rek man mosoon naa wax ne fii toog toog ci wetu kilifa te doo ko wax dëgg bàyyi ko moo ko gën mhm. ak lu metti metti metti metti bu fekkente ne am na koy jox ku ma neex waaye nag nee na aaya ba lam firi dafa wax ne am na foofu bu fa toolee dama koy foqati mhm. roccet la wax roccet googa nag méthode ba yàlla di jaar ba def ko moom la kenn dul xam kon léegi bu fekkente ne mbir dem na ba yegg fenn fi ñi war a wax nañ toog wax bu fekkee am na solution politique ñu def ko su fekkee amul solution politique ñu seet nu def waaye boo génnee ma def la lii ñen non bàyyi leen rek parce que ñi nangam ñi nekk ci wetu kilifa gi naan ko déet boo xam nga ñi dañuy dañoo kii te ñoom te ñoom génn te ñoo ñuy wax nopp njiitu réew mi naan ko non ay yii day booy yi dañuy kii dañ bëgg taal réew mi ñoom duñ dem ca manifestation ba

dama naan dem leen taxawaat. Ah, acca bisimilah non xam nga xam nga à mu ne loolu ñoom mën naa am sax boobaa ñu am satisfaction ci li ñu def mooy taxaw nañ parce que taxaw la def ay discours. bu ñu bu ñu defee ay discours ba. Euh, xëy na peut-être yi rëcc ci kàddu waaw waaw non yi rëcc ci a ngi fi. Euh, te moom. xëy na moom la ñuy ragal ak yooyu nga xam nga rëcc rëcc ci kàddu ngi noonu man daal damaa jàpp ne fi mu nekk nii li nga li nga wax léegi ne woote jot na waxtaan jot na. Ah. daanaka weesu na sax daanaka sax dafa dafa jot a jot jot ba weesu japp na ne ci déposé liste ya bañ tambulé di wax naan liste bi bax nak bi baaxut suppléant yee ya bax ak baaxut lañ warona waxtaan ba ñoo euh ba tënk teunk liñu teunk ndax fi ne waxtaan bu jubo itam dara amaat geneen ku jégo xam luñu lu ñu leen xeeb-xeeb ñoom jàpp nañ ni ñi fuñ jubo rek dañoo baara yëgoo wala dañoo yëgoo ngir jaay réew mi légui mbir bu tollé fofu dafa tollu fo xamanteni deug deug nak nag yu compliqué la yo xam ne réew mi warna am sax ñu leen ñigganti ñom ñaar ñëpp ndax tay manam président ci boppam mën naa toll situation bo xam xam nga kilifa dana ñig dana toll foo xam ne danga xam ne lii dootu mën a tee dem waaye mënatumaa dëpp ndaxte ndaxte nitay toll foofu rawatina ñi lay topp naan la nangam nangam Lat Joor Jóob keroog ba muy dem di xarajeeg tubaab bi wax nañ ne ba mu jaaree ci Sëñ Tuubaa mu wax ko la mu ko wax Lat Joor da ko ne waa Kajoor dañ ne ma yawa yawa yawa ba mënatumaa wax du man nit dana toll foo xam ne ñi la wër say dak parce que léegi léeg ñun ay président lañ am mais ñi mais ñi dend ak ñoom buur lañ leen jàppee ñoom ay dag lañ da ci bari ñoo xam ne ay dag lañ leen di jàppee menn Moustapha Diakhaté li ko li ko sénégalais yi mën a wax mën a wax mën a wax moom laay gis muy génn àgg ci dëgg goo xam ne da koy war a wax mu dal ci njiitu réew mi mu wax ko te du ci am dara lu muy reculer wax ne nangam nangam ji état bi normal lu ci loolu ba muy nekk député daan nañ dégg mu di ko wax ñoo xam ne dañuy bokk APR gis mbooloo mi bari mbooloo moom mu bari sax xanaa nag loolu ku takkuti weer ak loo mi yeb mi yeb boo kataraagee boo gisee mbooloo mi daje woon place de l'Obélisque nga xam ne mbooloo mi génn ñii ay picc wàcce wuñ leen fi ay avion wàcce wuñ leen fi mbooloo lañ moo xam ne yaa ñoom yéen a bokk réew mi ñu toll noonu génn dina xar lu mel ni mbir hmm. far ci genn làng tax nga bëgg a loolu bëgg bëgg gëmloo président ne ko ñu yoruñu mbooloo mais président lañ nax loolu nag mooy tas réew mi fukki nit topp ñu leen ñooñu dañuy nax président yàlla xam na dañuy koy nelawloo mais loolu lañ ko naxee ba ñooñu jël ay maire yu mel ni Dakar waaw waroon na ko yee moo tax wala xam nga. ah loolu loolu loolu loolu kenn waru koo nangu. gis nga wolof dafa ne langu noonu du tuut ndax ku mer dem ja mm-hmm. gis nga ki ngay xeeb euh, te man damaa gis man xëy affaire yi doy a fi ne nga ba tudd ca Moussa ak Firawna waaw mm-hmm. mm-hmm. bi mi ngi doon dox te nii mën na ci seede ni ko yàlla tracé ci addi ci ci alxuraan dafa leer nañ ci xeet yu demee nii maanaam xeeb xeeb jëmmi doomu aadama dafa doy waar gis nga su Mbàkke euh, amee mbooloo man ma am mbooloo ñu am na ñu xëccoo nit yi Mbàkke naan ma yow sa mbooloo mi du dara Maodo bu génnee fii nangam ñu maati ko parce que amuñu kii dañoo bëgg parce que yaakaar nañ xam nga pouvoir boo ci nekkee da ngay defee ne parce que pouvoir dafa bokk ci cër yàlla yi bu ci yàlla coppatee tuuti jox la ca nag boo deful nang da dof ndax da defe ne lu ñëw attan nga ko te loolu lu gàtt lay doon ab diiral léegi nag ñooñu dan lay nax ba nga xa ne da ngay jékki-jékki ne tëll yëpp dañu du tooyal seen ceeb doo nga doon tax waaye kenn ku ne xam na ne boo xalee yàlla xam ne la xewoon manifestation bi ñu génn ay junniy junniy junniy junniy doomu aadama te boo seetloo seen moyen d'âge bi ñi ci ëpp ñi ci ndax ji at gaawee léegi nii léegi nag kon li jaadu mooy ñu toog seet nu ñuy def pour am solution mais gis nga langue politique goo gis am na koo xam ne kii moom daa nekk ca wet lu muy wax mooy président yaa fi dàq président ñii dañoo nangam bi agsi na te moom am na ay renseignements généraux ñoo xam ñoo koy jox information yi balaa dara xew xaw ma nag liñ koy jox noonu la tëdd wala tëddewul noonu waaye xam na ni quelques quelques euh, chefs lieux régionaux yi nga xam ñoo nekk fii ci biir Sénégal fu mel ne Dakar fu mel ne diwaanu Ziguinchor fu mel ne Thiès ak yu demee noonu wóor na leen wóoral yàlla ni juróom-ñetti nit yoo fukki nit yoo taxawal juróom-ñett yee bu ay ndaw bàyyi nañ gaay léegi nag loolu li raam ci ñett bi la jëm

Nico. Vous avez relevé le niveau de cette émission. Ben, c'est gentil. Merci beaucoup. Euh, Italie également. Il y a beaucoup de messages de Sénégalais basés en Italie. Nous, il y parce que nous drapeau. Corée du, Corée du Sud. yéen xam ngeen Corée du Sud je vous écoute depuis la Corée du Sud. Sorry. na ah, sorry, Corée du Sud Machallah, je euh, bëgg naa fa dem euh, coréens parce que Corée euh, waa coréens quand même jar jar na un xamante ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm 11h41 minutes ndekki li émission naanité yi mën ngeen continuer réagir ñu ngi en direct ci YouTube beeg Facebook bi jamono ji euh, interactivité la bu ko defee ku ci nekk indi si sa xalaat ak sa gis-gis ci la lanoo waxtaane ak lu mu ci mënta doon laaj bi laaj bi mooy élection dana am am du am. waaw xam nga élection président nee na ak lu mën di xew élection dana am dara mënu koo tee am euh, waaye yeewi euh, yaakaaruma ne ñoom dem élection ci condition yi arrangé na leen. léegi nag bu boobaa dana am ak du am même buy am ci ban façon ci ban façon lay amee ndax fi mu ne li jiitu li jiitu li jiitu élection di am élection la maanaam dañ ko tudde sax ay pré élection wala yooyu defe naa élection la woon ci wuti ay parrainage élection la woon ci déposé ko élection la woon ci nofe ko yooyu yëpp dañuy toog di ko waxtaanee ba déggoo ba ne lii moo jaadu nii la ñuy demee élection ñu door a wax ne dañuy campagne yi dem wuti ay nit ñu ñëw watee leen mais ñun ci loolu lañ bëreegut c'est-à-dire loolu loolu war tax élection yi am loolu lañ bëreegut ba noppi gannaaw bëreeguñ ci nag élection am loolu beneen beneen laaj la boo xamante ne nii laaj bu yaatoo yaatu la xam naa ne élection moom mën naa am waaye am ci condition yi moom gënul am ci am ci condition yi gënul hmm. parce que euh, lan la la euh, lan lay jur Nicolas lan moo tax ñuy wut ay élection lan moo tax ñuy ay député lan moo tax ñu bëgg assemblée am ci réew mooy réew mu stable kenn ku nekk mën a liggéey assemblée mën a def rolam euh, président mën a def rolam kenn ku nekk mën a def li mu li mu war a def mais loolu njariñu réew mi la li may wax yëpp mooy réew mu nàngam réew mu nàngam réew mu nàngam mais galeenu maanaam li galeen bi di rëkk li nga ciy déggee mooy maanaam njariñul ay nit maanaam maanaam intérêt nit moom lay tëgg waaye tëggul intérêt réew mi su fekkoon intérêt Sénégal rek la fi mu ne moom gaal gi dañ koy taxawal toog waxtaan ba déggoo ci am mbir door a départ daal wutee ndoo ko nuñ koy wute jàmm door a am. xam nga xam nga gis nga am matière de de xëccoo yi demee nii ci wàllu politique da dem ba à moment donné c' est le travail qui tra c' est pouvoir qui travaille pour l' opposition. fi ñu toll nii waaw fi toll nii. gars yi ñu ngi def publicité opposition bi te xamuñu ko. Ah, waaw ñu ngi pouvoir ñu ngi leen defal promotion te xamuñu ko léegi yeewi neen yeewi it foo dem yeewi dana dugg yeewi dana dem yeewi dana waaw yeewi di dugg yeewi dana dugg oh. cest que loolu pouvoir bee ko may askan wi c'est-à-dire que bi moom moom te gis nga pour ñu tudd benn bokk yaakaar lu néew nga koy dégg parce que man xaw ñoom seen seen gars seen image yi seen xam nga xam communication bi ñoom fu ne xam nga problème bi dafa est-ce na ñu yore communication si am na am na si am na am na ñoom maawo et cetera mais xam nga problème bi fan la nekk <laughs> ñoom maawo et cetera non non maawo c'est mu juuf laay bëgg sama juufeen boobu laay tooñ quoi xam nga problème bi mooy euh, waaja dañ na ko ndax bëgg ngaa siiw dafa damaa bëgg a siiw ñu ne ko nooy def mu ne man daal seet naa seet man def naa nooy waaye waaye siiwuma <coughs> ñu ne ko waaye moom daa bëgg a siiw rek xam nga nu def daa dem taal kër baayam loolu ñëpp naan ñu taal na kër baayam léegi eh. c'est-à-dire que problème fi mu toll nii mooy liggéey opposition bi dana dem ci élection yi wala duñ dem ci élection yi loolu beneen affaire la mais li ñuy def nii ñi ngi ñi ngi jox ñi ngi jox doole jeunesse bi di jox ay doole yew yi et cetera léegi nag comme président wax na te moom moo moom la yàlla jox réew mi nee na soit alpha élection yi dara mënta jeex gannaaw yàlla. Mm. yàlla nag moom mm. moo yore dernier mot bi dana am ah léegi nañ seetaan bu fekkente ne ñii dañ cay dem ak loxoy neen xëyrun su dee duñ ca demee ak loxoy neen xëyrun su fekkee taux de participation bi dem nañ ba 18 mu nekk 0,2 pour cent ñoo xam de toutes les façons li ne ci kanam rawuli bët.